RFM Matin. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal. 8 heures jot na mbokk yi ñu dalal El Hadj Assane Gueye ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum asalaam sëñ Fall maa ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu yeewoondoog RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak uh, lu jëm ci wàllug uh, xeex ak ger ak uh, nattukaay gi ñeel réew yi Afrique yi Sénégal jamono yi demul dikkul ma nga ca place ba woon daan ci déglu sax xalaat a gis-gis bi ci ku ci mel ni Birahim sekk am bu forum civil. Eh, étudiant ba fi woon Mamadou Diop eh, bis na tey fukk ak benn ci at bi nu ko daal di faate ci manifester gu amoon ci place Obélisque kolobaan njaboot gi nu ko baaxee at mucc ne eh, ñu amal ay ñaan jëmee ci moom waaye di sàkku ci kilifa yi ñu gën a baxel gune yi ak manifester yi. fàttaliku geneen étudiant Balla Gaye moom it ñaar fukk ak ñaar ci at bi mu ñu ko faatee ci avenue Cheikh Anta Diop ci manifester bu étudiant yi doon amal foofe ca daara ju kawe ji wàllu xibaar bokk na ci it euh, kàddu yu ancien directeur de la solde euh, ci coowal troisième mandat am déet Émile Abdou Ciss moom la muy sàkku ci njiitu réew mi mu ne Macky Sall mooy mu wàccoo ak bëgg-bëgg askan wi na ko noonu bu charte réew mi di constitution bi leneen ci xibaar ak sàmm sa ca Bombay mën nañoo noppalu ak noyis lëf euh, ndax sàcc se leen sonaloon ak seen ak jur ak yeneen gendarmerie gantal na band wuy daa def càcc gunimel ci technique bi Abdoulaye Diop xeex beeg wàllu guerre Sénégal ba tey fa mu newoon demul dikkul euh, ci wàllu kon classement ak euh, natt gi euh, ci téeméer yu jël ñeent fukk yaak ñett dañu ciy déglu sax xalaat gis-gis bi ci biir Rahim Seck am mooy coordonnateur forum civil. at bu jot forum civil bi nga xam ne moom moo teewal fii ci Sénégal Transparency International dafay publier. benn nattukaay bi ñu woowe indice de perception de la corruption Sénégal nag note bi mu am note bu bon la maanaam 43 sur 100 mi ngi mel ne tey sa doom dem école ñëw indi la notu quatre virgule trois sur dix note boobu la Sénégal am te not bi nag moom la amoon daaw maanaam Sénégal farluwul dara ci wàllu xeex guerre loolu nag lu koy firndeel lu bari la maanaam comportement wu suñu autorité yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ñuy diriger la boo commencé ci président de la République moom mu ne am na ay dossiers yoo xam ne yu bëri yoo xam ne def na ko teg na ko concam loolu dafay jëmm lu ñuy wax impunité justice bi ni mu war a indépendant yi maanaam ñu war ko réforme ba nga xam ne dañ am justice bu indépendante loolu amul également fii ci Sénégal ci wàllu marché public yi dañ koy joxe tamit am na lëndëm lëndëm yu bare bare yu ci am ba tax na sax ARMP mi ngi biir présidence de la de la République donc foofu tamit amul benn leeraange ci wàllu marché public yi nga jël li ñuy wax prévention Sénégal amul loi sur l'accès à l'information Sénégal amul loi boo xam ne dafay encadrer ni ñuy financer campagne électorale yi Sénégal amul loi boo xam ne ni ñuy financer parti politique yi loi bi ñu am ci wàllu déclaration de patrimoine war nañ ko réformer daanaka tey baaxatul Sénégal tey mu ngi ci liste grise li ñuy wax lutte contre le de capitaux loolu yëpp boo ko dajalee ak comportement yi nga xam ne tey moom la gouvernement bi am à waa également ci ni ñuy gérer alal réew mi moo tax Sénégal note bi mu am mu nekk note bu bon Birahim sekk bu Forum Civil eh, ci weneen wàll ak nattukaay beneen eh, ñeel wàllum eh, sellal ci yorin di bonne gouvernance foofee Sénégal am na fa nat bu baax muy indice moo Ibrahim daanaka ci wàllu classement Sénégal mooy juróom-ñeenteel ci juróom fukk ak ñeent ci ay réew ci Afrique di kon téeméer yoo jël juróom benn fukki ak ñaar yu tegal RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. ak RFM kumpa jeex na. bis ne tey fukk ak benn ci at bi nu faatee kii di étudiant Mamadou Diop fanweeri at ak benn ci weeru janvier fanweeri fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2012 la woon ci place Colobane ci manifester gu fa amoon jamonoy nguuru maître Abdoulaye Wade. Euh, ñu daal di ànd ak euh, Mouhamed Diop ci gis-gis bi nga xam ne nag euh, cañ wax gi di société civile bi am na nu ko ci mbir moomee ndax ñoom dañoo jàpp ne la fexe woon fukki at ak benn wala ñaar ci ginnaaw jamono yi boobu tolluwaay ci la Sénégal ne moo waral ñu ñuy artu Diop. baat bi dootuñu ko dégg ba mukk fanweeri fan ci weeru janvier atum 2012 la dem ba faw Mamadou Diop jàmbaar la woon ci ci ci yeneen i jàmbaar yàlla na suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana. Abdourahmane soow bokk ci ñi nga xamee ne fësoon nañ ci événement yi amoon ci atum 2011 di fàttaliku. manifestation bi di jeex ci jour 31 janvier boobu euh, waaw ba ñu jàpp ne dañuy waaj ñibbi daal ci la am jàmbaarloo. auto police ba chargé ko mbëkk ko. fukki at ak benn gannaaw njombe bi Sénégal nekkaat ci jafe-jafe yoo xam ne mun nañ ko méngale yi amoon ci atum 2011 bu ñu sukkandikoo ci Abdourahmane Sawwa pratiquement même bu dee na muy demee du noonu mais mën nañ jàpp ne la taxoon euh, xeexu 23 juin am euh, lu ci bëri euh, mi ngi waat nii suñu kanam. Alassane Seck njiital Ligue sénégalaise des droits humains jàpp ne daanaka xaw nañoo méngoo waaye am na lenn loo xam ne moom moo ci des. mais nag li ci am solo lu mën a mën a jàpp moom ay fi mu nekk nii 2023 président bi waxagul dara. loolu daal mooy suñu chance pour l'instant fukki at ak benn boobaak léegi Mamadou Diop dem na ci contexte préélectoral boo xam ne bu métti woon la ay acteurs société civile jamono ji di alerté ci situation réew mi lu yees at dong suñu digganteeg présidentielle bu atum 2024 Mouhamed Jo Diop eh, njaboot gi bu du Diop dem ci àll si ñoom ca mbuux ni nu ko baaxoo at mu ne Euh, ñuy fàttaliku ak demam ak it euh, di ko ñaanal di sàkk it ci wet geneen ci nguur gi ñu gën a boole tolérance ci ndaw ñeeg euh, taxawaay ndax ñu ngi it lu bu weesoo seen doom joojee dem fukk ak ñeent yi dem it euh, bërki démb ci manifestation Ndeye Mati Dieng fukki at ak benn ginnaaw gi njabootu Mamadou Diop di fàttaliku ba tey seen doom jile ak naqar Adja Mbengue Ba mooy way juróom bu jigéen ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu bàyyi yàlla wutu ko ci njabootam yàlla mottalil ko yéeneem aussi ku bëggoon way jur la ku bëggoon a defal woy jur moom la amoon na jom itam nangoo jàng ba nekk professeur en lettres kon nag xëy na nii la yàlla dogal ndaw lu nekk daal na nga toog sa kër dal bu dee jàngee la war nga jàng bu dee liggéey la war nga liggéey na ay moom amul njariñ te du yem ci bopp boroom. Pape Niokhobaye Diouf di ma Mamadou Diop ne am na ci yenn yoo xamante ne nguur gi diggee woon na ko mu ngi koy sàmm ñaari bant yi lay mu fi bàyyi dañu leen jàppee comme pupille de la nation. loolee nag ginnaaw 2012 bi ñu boomee seen wéyjur bu góor ca place de la nation nga xamante ne sax étudiant la woon. xale yi moom def nañ leen pupille de la nation atte nañu. dédommagé nañu à la hauteur du jugement. nijaayam bile ba tey ak Doudou Ba di magu Mamadou Diop di sàkku sax ci nguurub Sénégal ngir ñu gën a may nopp ndaw ñi waaye itam di leen muñal lu bari. bu ñu gisee yenn yi di xew ci dëkk bi nit ñi di jiñante yenn yi par exemple lu mel ne ay détournement xaalis bu ñuy lubal ainsi de suite da leen di naqari xaalis boobu am na fu mu xajoon nañu déglu xale nañu waxtaan xale yi déglu xale yi homme politique dañu war a toog ñu dégloonte. am na ñoo xam bëgguñu injustice te dafa bokkoon ci mbindeef yoo xam bëgguñu woon injustice te fu mu toll nii il faut nit ñi di xeex loolu. waaye ku toog si kër rek pour raser les comme niñ koy defee at bu jot nag 2012 ba léegi njabootu Mamadou Diop di ko fàttaliku say su bés bi la jotee ak ay xasida nga xamante ne nekkoon na lu mu bëgg lool Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Média. jërëjëf Ndeye Mati fàttaliku geneen bu étudiant Balla Gaye moom euh, fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2001 ñaar fukki ak ñaara ngi kon fàttaliku gi ak génn àddinaam ñu booboon ko it ci manifestation ak it jàppante yu amoon diggante étudiant yu université Cheikh Anta takk der yi ci bi ñu ko tuddee sax euh, moom euh, Cheikh Anta Diop la tiis wi amee woon. leneen ci xibaar euh, lii di tribunal am Ndakaaru seetlu ngeen fan yi ak defar ak defaraat grillage boo xamante ni buy maase la courant bu raw sax bi ci kër yi bu nu def ca wërngaluk lii di boobu tribunal sàkkeete ko ko lu ko waral ndax tolluwaay réew mi la wàllu politique wala ay jugement yu nu fay waajal lu ci mën di am. seetlu gi daal mooy sàkketaat nanu ko akub euh, grillage buy maase euh, reportage Ndongo Ka ñaari ouvrier yu yéeg ci ñaar ci ay échelle di liggéey fi yamook benn ci bunt yi nekkee ci tribunal bu ndakaaru kenn ki yore bobinu fin de fer bi muy liggéeyee ci kaw miiru clôture bu tribunal bi boole ko tamit yore pince ci loxo ba ka ca des di superviser fin de fer yi nga xamante ni daal dinañ koy takk ba noppi ok mais lii ñuy def nag doon benn ci pàcc yu mujj ci liggéeyu installation wu clôture électrique bi ñuy amal ci miiru tribunal bu ndakaaru Pape Sène mooy gérant société bi nga xamante ni moom la ñu sant nag bile liggéey. système la bu ñuy wax tactile. il suffit nga laal fil bi rek. donc alarme bi day déclenché. bile sànc nag mënoo romb ci buntu tribunal bu ndakaaru te doo ko bàyyi xel mu doon système de sécurisation boo xamante ni mucc na ayib te it méngoo na ak jamono ñaari fan daañu ko taal ngir mu tàmbalee dox. chantier moom vraiment pare na d'ici mercredi incha dañ ko taal waay. ngir bi la sànci xeetu find feer yi ñu jëfandikoo uuteeg li ñuy woowee barbelé ndax yi la ñoo gën a naqaree tëb te ku ko jéem tamit yaa ngi tayle sa bakken. maanaam courant bu am doole la. defkatu ñaawte fi buñ ko laalee daf leen di maas te bu leen maasee moom vraiment choc électrique la bu am doole la boo essayé dagg fil bi donc alarme bi dafay déclenché barbelé bële ay lame de rasoir la pour boo ci yéegee mu dagg la mais nag d'habitude gars yi dañ koy contourner sax. mu doon liggéey bu yaatu loolu te xaw a yàgg ndax gën koo néew daal dinay jël nag lu ëpp diiruk ñaari weer def na nag neuf semaines nag chantier bu mag liggéeyu daal dee gën a tengal nag kaaraange gi ci tribunal bu ndakaaru ndax dafa laale ak lii di àtteeg Ousmane Sonko ak Adji Sarr mbaa sax bu Mame mbay Niang ak lu ci mënti am ñii di kilifa yu yor wàllug yoon nag ci réew mi jël nañu seeni matuwaay ngir fexe ba kenn nag ak i pexeem du mën a tëb nag miir bu tribunal bu ndakaaru ngir mën faa def ay ñaawteef mbaa naka sudul noonu. Ndongo Ka président Macky Sall dafa war a tegaat suuf xalaatu troisième mandat respecté constitution beeg askanu Sénégal xalaat laa gis-gis tukkee ci Charles Émile Abdou euh, Cissé moo nekkoon ni jamono directeur euh, de la solde euh, di coordonnateur coalition ëllëgu Sénégal nekkoon ci tournée ci Linguère. ñu déglu ko euh, moom Charles Émile Ciss ak Baye Assane Diaw wala bokk ngeen baal ma ak nettali la ñeel tournéem boobee ak Baye Assane Diaw. Charles Émile Abdou Ciss amut naatable ni président Macky Sall mënta bokk ci élection falum njiitu réew min dëgmal. amul sax lu ñuy warante laar na ñëpp constitution bi laar na te jàpp nañu aussi ñi koy laaj danañu am xel tuuti delloo seen xel ci yàlla yërëm sénégalais yi te xam na li yàlla di dogal dogal na mu jàpp ni mënees naa jooyanti lu bëri réew mi ngir mu mën a suqaliku. mbay mi ñu gën leen yokk mooye ñu améliorer aussi diñ koy gérer ñu fexe aussi ci wàllu sam yokk fi nga xam ne moom la jur yi di dakk ndaxte seen espace yi doyul te aliments yi cher te euh, dañuy far di am yoo xam ne pour mën leen fajafe ñu fexe aussi yombalal béykat yi accès bi ci engrais bi ci suuf si ci mën béy parce que mënoo béy boobul suuf engrais bu cher aussi dafay jafe ci yow wàllu napp bi it euh, nekk na loo xam ne lu ñu soxal parce que gis ne tey suñu mool yi dañu dem bu sori pour mën a am lu ñu napp wàllu éducation administration santé liñ ci wax rek mooy a xam ne ñoo yor jàngale ko la lettre. liggéey bi ñu ko dénkoon ci direction solde am na yaakaar ni matal na ko ba amul lenn lu mu ciy réccu. day sant yàlla parce que koo liggéey ci béréb ba nit ñi di la gërëm wala ñi naan liggéey ba am na njëriñ loolu sant yàlla bu jeexee aussi ñu xam ne noonu la ko yàlla dogalee dañ ko jàppee ne suñu mission moo jeex amuñu ci luñ ciy rëccu ndaxte li ñu santoon def nañu ko. njiitu coalition ëllëgu Sénégal Sénégal jot naa dalal ay nit ca quartier Thiély Sud ngir xamale leen ak yéenam ci réewum Sénégal ci wàllu programme politique Baye Assane Diaw Linguère Radio Futurs Médias Baye Assane jërëjëf waa Bambey ñoom sàmm sa fa yeewu nooy waatas lëf ak sekkeen nag ngeewen yi daa sàcc ngeen baal ma seen seeni jur lu ci mën di am jàpp nañu bàndu ñi daal def lu ni mel euh, ci xibaar moo di bala euh, moom la ni euh, woowee kenn kanu ci jàpp ak ñamu ci àndaloon ci càcc googee brigade bu diwaanu ko Bambey moo daal di gàntal seen pexe yooyu jëm ci sàcc juru sàmm sa fekk nañu ak ñoom sax ñu ne xar yu baree ki bëy Babacar Diouf. élément brigade de recherche bu commissariat urbain bu Bambey ñoo teg loxo ñetti nit ñi nga xam ne ñoo doon wër Bambey di sàcc sàcc gu métti gi nga xam ne moo fi am bëccëg ndarkaam lañ leen fekk ci kër gi nga xam ne fa lañ doon noppaloo di fa def mu nekkoon seen kër teg leen loxo càcc gi ñu mujj a def ñu ngi ko def ci guddi dimaas jàpp altine ci dëkk bu ñuy wooje ngàcc ci commune bu ngoogom foofa nag jël nañ fa lu toll ci juróom-ñeenti xar ak benn béy boo xam ne ni ñu ngi ko dencoon ci seen wolof Modiba ki nga xam ne moom lañ njort ne moom moo jiite band bi ak ñaar ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ñoom ñëpp teg nañ leen loxo ba def leen garde à vue ci commissariat urbain bu Bambey ñu ngi xaar ñu defeere leen bu élément commissaire ñooma jeeju yi pare ci seen l'enquête bi nga xam ne moom lañ ci ubbi Bombay yi RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar ñu dellu ginnaaw ñëw ba Tiwaanu Thiès waxtaanee mutuelle de santé yëpp yu euh, mutuelle santé communautaire yu cees ñetti fan yu ndul amal benn liggéey li ko waral dañuy ñaaw lu ñu ne euh, lii di subvention ndimbal gi état daan euh, toftal ca ñoom ak seenub liggéey ngir jàppale ko askan wi bindu ci mutuelle yi boobu dakkal ñeel subvention yi mooy li leen metti kenn ci kilifa yooyu mutuelle ñu teewlu ko Émile Demba Tine ak Cheikh Anta Diop. dañoo jot bataaxel bu yoree ci directeur agence couverture maladie universelle di docteur Mamadou Daaf mu wax ni da ko wax yaakaar naa ci ndigalu nguur gi ndax nguur gi la fa toogal mu ni léegi dafa bëgg a soppali li nga xamante ni président de la république moo ci engagé woon mu waxoon ni képp ku bokk ci mutuelle dina la nattal juróom-ñaari téeméer ci kaw boo tegee si juróom-ñaari téeméer loolu ñu ngi ko doon def depuis 2013 te loolu dafa àndoon ak lu mu doon jël ci paj mi dégg ngeen paj mi yëpp jamono yooyu soppeeku na képp ku daan dem faju muy poste de santé ak centre de santé ak garab yi bu dee faj bi quatre-vingt pour cent la maanaam ñaari fukk yoo jël fukk ak juróom benn yi la lay gàddul nga weer si ñeenti ñeenti dërëm garab yi bu ñu la ko bindalee nga dem hôpital bu dee garab yi nekk ci bitti nga dem jël ku genn wàll mutuelle du loo xam ne lii boo koy doxal da ngay xëy rek ni jël damay jël doxal te mais ñañu ko sékkal ñoom nañu xam ni mutuelle du lu bees mutuel lu yàggale fii ndax ñun ñii balaa couverture maladie universelle fekk mutuelle lu Fandène taxaw na lu jógee fanwe at mais foofu la ñu gërëmee président de la république bi mu ñëwee yaatal ko ba def ko kiiraay ba muur ko yëpp ci réew mi pour que ñëpp mën cee jot parce que loolu boo gisoon mu def ko gisoon na ni nit ñi dañoo sonn ndax bëgg nañu faju te mënuñu jot ci paj mi mutuelle nekkoon alternative nga bëgg a wu loolu leneen lay doon retrait sax ñun bañuñu ko mais tàggatoo defaraat te loolu mënul nekk sax ci benn at nit ci ñaari at nit ñi dañuy taxaw bañ a fañ d'abord ñu ngi ciy jéggalu suñu mbokk mutualiste yi dañ koo def pour que ñëpp réew mi ak ñëpp ñi bokk ci mutuelle yi yëg ni mbir am na trois jours yi bu jàllee amul solution ñun am nañu plan d'action sport gi Malal Junior jaañ maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar Alassane. bisimilah nu dooree ak Sénégal bi war a amal tey jii bu euh, juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee demi-finaalu euh, CHAN bi ca euh, réew Algérie seen digganteeg Madagascar lay doon. démb ñaari ñiy tàggat yooyu la équipe ku ci nekk ci ñoom jotas nga ànd ak kenn ci sa ay gone daal di tontu ci laaj taskatu xibaar yi ci naka ngay waajalee jongante tey bi lañ ca wax lépp solo caam jotas na ko ndaxaj Sénégal Madagascar ci diggante équipe bu défensive lay doon ak gayndek Sénégal yi ak équipe bu offensive ak ñu ñuy dippele Bareya kon nag foofu xëccoo gi dina metti bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat gaynde yi di Pape na Thiaw ci conférence de presse d'avant match la yëkkatee yi le waaw match bu metti parce que xam nañ demi-finale contexte match yi def moins d'erreur que l'adversaire surtout ça se ça se joue sur ay détails et détails yooyu nag il faut ñu éviter ñu mu doon su suñu côté surtout euh, l'efficacité défensive. ab euh, dafay dafay am importance si genre match yi et surtout tamit euh, les coups de pied et tamit surtout aussi tamit euh, équipe yoo xam ne day nekk en place loolu tamit lu am solo la ne pas déjouer concentré wu jéem a def ñun tamit luy suñu fort xale yi defuñu am nañ envie vraiment andi dara dëkk ba et je pense que ni c'est possible parce que parce que wane nañ xar kanam bi et yal na leen ko yàlla defaral ñun ñëpp ba nga xam bu ñuy doon dañuy reetaan. natangoom bu Madagascar bu gën a teg ci mu am qualification historique ak Madagascar moom it mu ngi xaarandi jogante gu jafe Romuald Rakotondrab. bi ñu qualifié demi-finale ba tey xam nañ ne match bu jafe mu ñuy xaar préparé nañ nag bu baax rawatina ci plan mental gis nañ ni équipe bu Sénégal moom équipe bu xarañ la ci wàllum défense ak it engagement bu doy kon dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ci bile jogante même bu fekkee ne xam nañ ni dina jafe lool pour man nag amul jiixi jaax amul werante Sénégal moom mooy favori waaye nag comme niñ ko xamee moom match football moom ci ay détails taxawaay rek la poñ yi di taxaw te match bi la moom jàpp naa ne ki concentré wu ba match bi jeex kookee moom mooy gannaaw conférence de presse d'avant match yooyee nag ñaari équipe yi daal dinañuy amal seen tàggatu gu mujj laata gi ñu fas yéene amal ni ki talaata ji bu 19h GMT jotee président bu fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor teewee woon na séance Sénégal nga xamante ni ñaar fukki gaynde ak benn ñoo ca bokkoon Raymond Jémé Ndour moo ma nga doon def ay exercice ca moom ba léegi reprendre gul tàggatoom mu newoon Soda Thiam fii ci Alger ngir radio Futurs Médias. beneen jongante bi dinañ ko amal ñeenti waxtu ci ngoon tey ji Algérie mi dalal jongante yi moom moo dee laale ak équipe bu Niger. si wàllu coupe du Sénégal fii ci réew Sénégal démb jotas nañu sumb euh, loolu ci euh, terrain Sénégal yi. malal waaw jot nañu ko sumb coupe du Sénégal fii ci Sénégal terrain Sénégal. <laughs> malal nag weer wi Sénégal la coupe du Sénégal la laaj. waaw leer na waaw foofu ñu sumb ko ci terrain Sénégal yi. <laughs> waaw parcelles yi nga xam ne ñoom itam ci réew mi lañu bokk mu leen ci génnee. jot nañoo daan waa Galaxy benn si dara. Alimal moom nekkoon na équipe nationale bu Sénégal ay jamono. mooy hmm. entraîneur waa parcelles yi nee pexe yi nas ba daan waa moom dañu dañu am comme nañu waxee réussite mais ci benn occasion presque lañ njëkk am ñu dugal ko am nañu bu njëkk mais beneen bi rek dugal nañ ko donc loolu moo gën a dina a dugal ba pare ñu garder résultat bi ku doon dugal ko sax la dugal si ñun des fois mu ngi nii ci deux bi instant bi keroog moo dugalaat donc dafa bu mujj ñu teel a garder aussi résultat bi mais am ay a joué a si aussi garder le xale tamit ñu bëri ñu ñoom ñoo doon joué gagné leen am nañu seen chemin ñoom duñ def comme couple la aussi dañuy wax ne couple moom da ngay dem di jouer rek ak koy dasel ama ah, dégg dajeguñu kon gros yi encore ah coupe bi ñun ne dañu jouer rek ku ñu tasel daal nañu jouer nee naa leen daal nañu jouer ñafe lu ñu am jël nu jeexal alaaji ak wàllu njaay mi ak njëndum euh, joueur yi ca bitim réew xale Sénégal bi di Ibrahima Niane moom jot nañ ko jaay équipe bu euh, SCO Angers ñaar fukki ak ñetti la am ñu ngi ko tàggatee fii ci génération foot mu nekkoon foofa di football daaw nag ab gaañu gaañu moo nekkoon lu ko doon gàllankoor ba mënutoon yeggale na mu tàmbale woon ndax dafa doon tàmbale di dugal ay but yu bëri bëri hmm. waaye am nañu yaakaar ni ca Angers mu dem daal dina fa mën a wane boppam ngir dimbali leen ba ñu génn si jafe-jafe yi nekk ak xuloo itam dox na ca Manchester City diggante entraîneur ba Pep Guardiola ak euh, Joao Cancelo xuloo boobu metti woon lool ba tax ñu jël euh, Joao Cancelo daal di koy abal ñii di waa ne de Munich démb ci ngoon la yegg nekk foofu ca réewum Allemagne Bayern Munich nag mooy équipe bu euh, Bouna Sarr ak euh, Sadio Mané ñaan ñëpp delluwaat nañ ci équipe bi di entraîné moom nag tey jii def visite médicale am ngir mën a yeggali saison bi ak équipe boobule ñii di waa Bayern sax nañ bu ñu amul leen gënal daal ñu fexe xool ak waa Manchester City lu ñuy def ba nu jaay leen ko ñu mën ko téye ci seen équipe boobu ndax am na nañu yitte. Euh, ci moom. Ah, <laughs> man entraîneur da ko jaay tax dafa xuloo moom. da ko abale da ko abale. waaw parce que bokkutul woon ci euh, jour yi mu leen convoqué. Mhm. xale bi nag mu que am na agent moom tam mu yëngal. mu mhm. abale ko ngir mu bañ a toog bañ a football. ndax boo toogee bañ a football da ngay da ngay da ngay dellu ginnaaw. très bien waaw kon maanaam mën abale yow abal la waa waa Zik FM. <laughs> loolu alal ji ngay xaatim loolu yow. <laughs> jërëjëf. pour man RFM mooy a jege ak soxna Fama Dione ci chronique culture bi. dalee nag jàmm seen Music Store mooy projet bi nga xamante ni euh, borom xam-xam bi ci wàllum culture ak management di Talla Thiam moo ko taxawal ci njàppandalu Anna Safietou Touré ñoom ñaar nag taxawal musée virtuel du Sénégal li ko tax a jug mooy fexe ba askan wi gën a xam lekk seen aada ak cosaan jaarale ko ci wàllum digitalisation Talla Thiam ci micro Mame Diarra Sadio. seen Music Store euh, mu nekk benn plateforme sur les instruments traditionnels africains ñu commencé ko depuis mois d'août dëkk bu ñuy wax Sédhiou nekk en Casamance sud du Sénégal projet bi nag li ko tax a jóg nag mooy préserver et valoriser les instruments traditionnels à travers le maanaam jumtukaay xarala yi moom tax a jóg suñu projet bi projet bi nag ñu ngi ci ànd ak euh, waa Belgique wala ni Bruxelles ak sama benn collaboratrice bu ñuy wax Anna Safitou Touré moom mi ngeen gis li ngeen gis lépp ci côté art lépp moom moo ko def ak côté ak ki nga xam ne moom mooy Thomas moom moo def li ñuy wax conceptionné site bi waaw léegi nag seen musique histoire nag ba ko déggee maanaam mën nañ ko jàppe benn musée virtuel musée bi nga xam ne tey yow foo mën a nekk ci àddina bi à travers suñu site bi ñuy wax www point senwikstore point com mën nga fa mën nga fa gis instrument yi nga xam ni moom lañu demoon euh, demoon ci liggéey fële ca Sédhiou instrument yi nag ñett ñu ngi nekk ci sept juróom-ñaar am na mongo am na dangira am na bombolong am na soruba am na euh, kora am na am na hmm, bugarabu ak waaw boo gisee dañuy projet bi dañuy commencé ci benn partie Sénégal ñu dem région bi ñu wax région Sédhiou parce que dañu xam ne Sédhiou dafa nekk dëkk boo xam ne dafa riche culturellement ba pare dafa bëri ay composante euh, communauté yi fa nekk di nga fa am ay joola di fa am ay balant di nga fa am aussi yeneen euh, yeneen xeet yi fa nekk léegi nag ci kaw loolu ci lañ choisir nag juróom ñaar ci instrument yooyu noonu waaw juróom-ñaari instrument yi waxuñu na foofu la bi yem mais maanaam dañu débuté en attendant incha allah ñu commencé waat am yéen tamit wër Sénégal yëpp fu instrument traditionnel nekk rek ñaar koy jël teg ko def ko ci suñu musée bii di musée virtuel bi seen musique store. ci gàttal ñaareelu édition festival international littérature dina am juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ci weeru juin atum 2023 gi ñu nekk thème bi ñuy fas yéene waxtaane nag mooy patrimoine littéraire et écriture contemporaine dina am. ay table ronde dina am récital dina amit te taalif li mu nekkoon seen chronique culture di daje ëllëg ak jàmm. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Ecobank Malaysia UMO Soumari.com savon de Alfi Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ab taxaw seetlu moom la journal l'observateur xëye tey jii ci mbir mu ñu bari seetlu ci réew mi mu di politisation des affaires judiciaires maanaam ay mbir yoon war a régler ñu rax ci politique bi ba mu ne lëjj ubbil yéenekaay bi coowal Adji Sarr ak Ousmane yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne dafa bees rek waaye am na yu ko fi jiitoon li ko dalee ci Mamadou Dia ba ci Karim Wade jaar ci Khalifa Sall Idrissa Seck ak ak yoon te ku ci journaliste formateur doon nit kuy gëstu ak a càmbar politique u réew mi ñoo ngi koy xamal ne yoon jekku la nga jël yëf di ko politique loolee foo ko gis rek ñaare jëfi politicien la gis nañu it ne ci njiit réew yi fi mas a jaar amul kenn ku fi mas a def luy wane ne justice bi dafa indépendant beneenu taxaw seetlu ci beneenu politique kat ci Walf Quotidien Aminata Touré ak i mbiram moom la yéenekaay bi xëye ba dañuy wax ne guddi yu ñu toll moom Mimi Touré mi ngi mel ne kenn bëggul réew mi ndax waa APR génnee nañu ko ci seen bopp te ñi ci opposition bi it xajowuñu ko njiital jàngu bi ci réew mi di monseigneur Benjamin Ndiaye moom la journal bés bi le jour xëy ngi wax ci tolluwaayu réew mi Benjamin Ndiaye nee na li fi xewoon bu yàggul ci assemblée nationale loolee lu la ndax jekkul jaaduwul kàdduy fitna ak tëkkuwante yi ñu gis ci réew mi moo tax le mandat samp ab laaj ci xëtamu njëkk laaj bi mooy kan moo am intérêt ci réew mi tàkk jaxasoo baa mu salfaañoo journal bi mi ngi ñuy wax it ne am na ay nit yi diine yu yëkkati seen kàddu di woote ak dal ci xët-xët yi am ci géopolitique bi mooxtaala géey di dof ma ci réew ndongo Simon Kilifa Ngaaka Blindé ak Fou moom Fou moomee sax mi ngi wax ci xët mu njëkk journal L'Info ne ay saaga dafa bokk ci hip hop ab historien du def mukk ab live de ca saaga kon loolee rappeur yi ko moom nañu ko bàyyee ak ñoom Simon Konka dib rapkat moom it ni ñu ci yéenekaay bi dañuy fàttali président de la ne détenu d'opinion yi mu tëye ci kaso bi amul kenn ci ñoom ko fi mas a wax lu gën garaaw li mu fi waxoon moom Macky garaaw waxi Macky Sall moo ko gën garaaw fop ndax nit dof yeggul foofu feneen di ci enquête dina kay gestion ak exploitation bu train express régional bi di TER bras de ba ci am moom la yéenekaay bi xëy di ñu leeralal li ko waral Sud Quotidien gis saxaar gii di TER dafa mel ni ko aawlu ne bari na coow ak mbambu ko topp coow li fi jolli fan yi mu di kan ci diggante France ak Sénégal moom moom express régional bi day coow lu mujj rek waaye saxaar jaaxal moo di ministre Mansour Faye ne ba léegi kenn dégg ko mu àddu jëmee ci coow li am ci train express régional bi fan yi te moom mooy ministre des transports terrestres boole cee bi fi saxaar gi dawee téeméeri fanam yu njëkk ab conférence de presse la woote woon ngir doon def bilan bi lu baax lu nekk mu waxaloon ko saxaar gi tey jii la Figaro bindal teer bi lu ne weng ministre Mansour Faye mel na kuy da ji kenn dégg ko mu wax ji ginnaaw teer bi ji fukki junni ak ñett di treize mille moom la amagum leneen lu am ci Sonacos Tribune nee nañu mooy personnel saisonnier ba fa nekk bu ñu doon téeméer la fukk ñoo des ña des ñëpp mu di dem nañu chômage te embauché nag ñoo ca topp centrale thermique bu Sonacos bi yéenekaay bi nee nañu ñeenti weer ngi doxul ndax dafa ay pièces yu fa yàqu te ba nekk nii amaguñu yu ko changé ñu changé siise soppiwu doxin dox dem ci l'observateur ubbil yéenekaay bi bi xëy ku leen xamal ne am na benn charlatan bu ko doon ñaanal mës na koo sant mu jël ñetti xaj yuy dund mbaam ak ginaar gas ba mu xóot suul leen ci CCPS comptoir commercial